Euh, tey nag li ñuy waxtaanee ci kujje gi dañuy ñëw rek jublu ko ci langue politique bi ndax na umple wuñ ne élection législative leen jëm nekk na war a nara a nekk élection yu nara neex na gis nañ coalition yu bees yi nga xam ne euh, am nañ ko fi ku ci mel ñu ci mel ni euh, sàmm jàmm ak jàmm ak njëriñ ak sàmm sa kàddu ak bu bu bu sàmm sa kàddu mooy genre kii ñoom bugaan ñoom seen maa ngi jégal de topp d'accord ñooñu léegi mu nekk loo xam ne tubaarfakàlla macha allah li ko waral mooy élection yi nga xam ne si lañ jëm si mu nar a nekk ku mu nekk ku xam ne am na seen biir asan mm-hmm. ba ku nekk am foofar ñi booloo ñi doon benn waaye ci li ci gën a garaaw mooy ñi nga xam ne ñoo doon ŋàññante démb tey ñu ñëw ànd doon coalition noo ko jàngatee waaw ni ma ko jàngatee du bari waaye wax dëgg yàlla man gisuma ma si lu jaaduwul li ma gis rek lu jaadu la mm-hmm. Abdou Diouf Abdoulaye Wade dañ naan raag ba dugub ba waat te teewul dañ naan ànd bu ñu waree ànd. Hmm? voilà président Macky Sall mi gis nga ko Ousmane Sonko gis nga ko moog Abdourahmane Diouf. gis nga moom mii. mii. Ousmane Sonko ak. Abdourahmane Diouf. Ousmane Sonko te ba waree ànd dañoo ànd bi liggéey jotee dañoo ànd liggéey kon maanaam ñàkk déggoo si ay période politique. ñàkk déggoo si ay priorité politique ak déggoo si ay priorité politique lépp benn kon daal ñëpp ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñu waxtaan ba déggoo maa ngi leen di respecté seeni choix te di leen si encrassé di leen wax ne bu leen ko kenn yàqal bu leen kenn wax ni leen kii da yaa ko xasoon démb tey nga ànd ak moom loolu moom yàgg na fi mënuñu see génne kenn koo tudd rek am na ku mu xasoon démb tey ma ngay ànd ak moom kon na képp ku gis ku doon xuloo démb tey ngeen ànd li war ab jullit mooy nga tàccu leen rafet rafetlu ko yal na bu ñu réeroo waat mais nag Sénégal da gis ñaar ñoo xam ne xuloo woon nañ juboo nga naan lu tax ñu juboo amuñu ngëm-ngëm te nga ne ab Sénégal nga rawatina ab jullit ñaar ñu xuloo woon daan xastante tey ñu nekk benn di waxante lu baax nga ne lu tax loolu da bëgg ñu continuer di xuloo yow loolu mun mënta ne kon ñëpp ñu mën a ànd nañu ànd te yàlla tax ñu liggéey seenum réew nañu bennoo laaj baatu askan wi bu askan wi wóoloo comme si wóolu rek jox la nga am maturité yor doxal réew ñoom ñëpp ñu leen di encouragé daal nañu ànd rek. d'accord hmm. coalition yu bees yi nga xam ne am na. waaw nee naa leen la répétition est pédagogique euh, naka noonu laa ko waxee woon ci élection présidentielle ne duñu romb dix ou douze. te la ma waxoon yàlla may na ma ci ndam noonu la demee itam parti yu bëri yeeg àndandoo yu bëri amul benn sens ku mënoon kenn ko ci nekk ci yow da ngay daal di fëgg sa dënn daal di def ni nga xamante ne ni euh, noonu la ñoom euh, PM Ousmane ko def. ndax bootuwuñ ci kenn ànduñoo kenn naam nag amoon na fi euh, may dëggal benn kàddu rek ci li Assane wax nee na xuloo ak juboo ñoo ànd naam mais bu xuloo ñaawee juboo du rafet bàyyi xel loolu parce que xuloo ak juboo bu àndee juboo ba dina am naxante sew-sew da cay neen ànduñ ànd gor ànduñ ànd nawle ànduñ ànd gu sincère bu ma ko waxee ci sa waa nga xamante ne génn ba def point de presse am noonu nee na moom dafa def politique campagne déguisée ci élection bu jotagut moom loolu la def moom Bougane Gueye Dany naka noonu wax na position ba mu bokk ca euh, listam loolu mooy appel loolu mooy code mais moom bu mënoon wala keneen parmi ñoom ñëpp muy euh, nu mu tuddate sax ñoom ñëpp daal du bu bugguma cité seeni tur kenn ku ci nekk boo munoon wala ngay jàmbaar wala nga am base politique am mbooloo 14 régions Sénégal yëpp jox la bopp diaspora bi itam jox la bopp yaakaar naa itam dangay daal di jéem demal sa bopp caution 15 millions tawu ñoom ñëpp am nañ ko mhm. donc kon jàpp naa ne ànd bi ànd naxante la beneen bi ci topp itam gisaguma fi wujje opposition bu dëgër man gisaguma ko fi très sincèrement ay alwaxaa ñoo fi nekk ay yamb ñoo fi nekk ay futoo ñu toog ay charo charognard ñoo fi nekk maanaam ci je pèse bien même bu kenn wax damaa kenn ñoo xamante ne nii ay jikkoy gëlëm lañ yor ci kaw la ñuy lekk garab guñ lekk ba ca des du leen doy dañ ko fee bàyyi dem lekk feneen kenn ku ci nekk sa intérêt personnel moo la jiital ci ñi ma gis nii ah je pèse bien moom ñi ma gis ci opposition bi ñëpp pour l'instant ànduñ ànd gor ànduñ ànd ami d'enfance ànduñ ànd petit ba grand ànduñ ànd nawla ànd kaa la ñu xeex régime bi pour ñu bañ a am majorité ñoo fa nekk waaye nag kuy xeex ak yàlla ku ne dangay ngay ndax ku yàlla sàng ku ne sama maama ko wax euh, loo liw liw say tànk du feeñ te ngelaw fayut làmp ku weddi laajal sondel bëreeg sa maas toppandoo sa maas diiroo ka nga yemal mbagg man daal maa ngi ñaan man Senghor te yaakaar naa aussi libre naa ci sama point de vue la maa ngi ñaan ñi fi nekk ci réew mi son excellence yal na yan bi OFP am nazalika yal na leen yàlla may majorité à l'assemblée ba li ngeen ñu promettre ba tax ñun ak ñenn yi ñu jox leen suñu carte itam ngeen daal di koy doxal wéyal ko ni mu bëggee ak ni mu jaar ci jubal jubbanti leeral ku gis loolu tamit ak ni mu jamono doxee xam ne ñu ngi ci lool di nuyu tamit ñi nga xamante ni nii tubaarkàlla ñooy justice yéen a gore yéen a prop kenn tënku leen kenn linku leen kenn yónniwu leen ci kenn liggéey rek ngeen di def am na loo xam ne tey bu xewal dina am ñoo xam ne dinañ jaay seen ngor waaye bëgg naa ñoom di leen wax mention ci kanam ñu daal di gën a dëbbaat réew ba mbokk. jaajëf oustaz yéen nga kàddu yi nga xam ne yëkkat na ko nee na ànduñu ànd ngoon. oustaz Eric nag. ànduñu ànd ngoon. non non oustaz ko waxee bi loxo mais joxe loxo bi bi nga koy jox moom nga war a bàyyi. jox loxo bi loxo bi nga jox ki dafa haram sa diggante. haram woon na yàlla non non man xam nga ne yaa ngi muudu xam nga ne yaa ngi muudu yow laay faral. waaw waaye nag lii moom dafa jaaduwul. waaw jaaduwul loxo bi ngay jokkoo di tàppanteeg moom ci plateau bi dafa ñaaw. ñaaw na trop. waaw ah, yow tamit est-ce que duñ jóg vraiment damay wax oustaz yi. lii moom wax dëgg yàlla jóg lañ si war a def. waaw dëgg war a jóg de. Ah. gis nga ah. ah maa ngi lancé une appel solennel oustaz. ah bàyyi ko bàyyi ko mu lancé appel mayel mayel muudu mu lancé appel. na jaru ko na di wax <laughs> Didi bismillah moom nee na gisul kujje gi ci langue bi. nee na. gisu ci kujje. ci langue bi nee na waaw nee na ñooñu nga xam ne ñoo ànd sax ànduñ àndu ngor. laaj ko ab laajam bu ne ko li Bambi wax de laaj ko laaj. foofu laay ñëw foofu laay ñëw. boo tuddee Bambi dina ñëw. non non day répondre Bambi du ko tontuwaat. très bien léegi fii la jëlee pour poser ma question. loolu rek la noo gisee ànd yi nga xam ne ñoom booloon nañ ko ñoom. waaw kay waa ngi nii mm-hmm. xam nga Baye Assane euh, politique moom la politique est sérieuse. yes. loolu laa gis. la politique est sérieuse. des émissions spéciaux politique moom. <laughs> franchement parler bu amuloon. dara daray àdduna du dox. àdduna bi yëpp ci politique la. xoolal yenent bi màkk la juddoo. Médine lañ ko denc. politique a tax Sénégal jot ci. diine l'islam. yàlla ñëw ànd ci politique boobu. suñu borom ni boobu man yabtaghi ghayra islaama diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin waaye politique bi ñuy politique politique bu Sénégal bii nag moom. sérieux amu ci xam nga Assane ne naa la opposant opposi euh, nekk opposant day tax pouvoir xam fu mu teg tànkam ndax ñoo lay mën a wax fooy jaar ba doo réer ba doo gëlëm ñi ànd dañoo ànd ñii gañe réew mi tey ba toog fi mu Ousmane Sonko ak Diomaye mais dañoo amoon coalition oui ou non ah pourtant boobu am na pouvoir boo xam ñu ngi fi woon mais ñoom li nekkoon seen xalaat mooy jële fi jële fi pouvoir bi yàlla yàlla dimbali leen seen projet ak système bi ñaari baati ngi Sonko da ko indi woon bokk na ci nga xamante ni moom la gagné Sénégalais yi bokk na ci projet bi projet bi projet bi projet bi projet boobu ba tey ñu ngi ci beneen bi système bi nañu changé li fi nekkoon depuis 1960 ba léegi doxul baaxul léegi ñoom ñu indi rupture bëgg indi lu bees tàq tegal ñu ko ñi ñu bokkal ëtt bi nag nga xam ñoom ñoom ñooyam am nañu droit tey mu tax politique Sénégal doy waar yow ku la yeewoon ba xaaju guddi wax nga ko ab Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf dañ naan raak raak bu mettee méttee méttee wax nga ko sànq mais teewul heure bu Abdou Diouf soxlaa Abdoulaye Wade day ñëw. du woon ngir intérêt liggéey attention. du woon ngir intérêt mais même lu mën a xew. moo tax nga xam ne politique sérieux wul. du ñuy def moo tax nga xam ne sérieux kon. fii la ñu fekk. Abdou di jàpp di bàyyi Ablaye di ñëw te teewul mooy mooy président PDS ne ca bopp ba àdduna di doxal doxal dox ba àdduna yëpp naan sa Seck doomu Abdoulaye Wade bëccëg ndar kàmm lañ fi fekk ah ñu dema dema dem a dem Idrissa jaar ne Abdoulaye Wade jaar nii Abdoulaye Wade woote réunion ay njabootu Idrissa toog mun leen li ma Idrissa bu leen boobu ndeysaan yarax mujj yàlla na ko yàlla yërëm nii na toogee Abdoulaye Wade ni ko yéen ñi fi toog ñëpp Idrissa yéen wu ci kenn ñun ñëpp a ngi seetaan teewul jamono di dox di dox a dox gis nga li xew diggante PDS ak APR kan mooy kilifa ki gère APR non Macky Sall euh, Abdoulaye Wade kon bu ñu demee ba politique boolewaat leen politique moo leen boole. li nga wax nii li nga wax nii attention politique lu ma rek législative bi da nga wax lu am solo sànq dama laa déglu de te muy lu wér. moo tax nga tàpp loxo bi. ñoom waa Pastef waa gouvernement bi war nañoo sóor xam ni. ñii seen coalition yi ñu dajaloo pour ñoom ñu bañ a am majorité la mais ñoom dañ ko war a xam c'est la vérité. sax bi nga mel ni kuy wax ne dama non moo am mais mooy dëgg yi ñëpp xam dama ni bu fekkee waa gouvernement bi mu Assane dugaluñu seen bopp ñoom nit ñi nii leen tax a jóg kon dañuy nelaw ñoom kon doon ñuy politique kon nañu xam ni programme mu takkoog programme mu walloog programme ñeneen ñi ñoom ñoom ñoom bugaan sa kàddu sàmm sa kàddu ñoom ñëpp xam nga mooy lan nañu fexe am nu ñu amee doole ngir ngir ngir état gouvernement bi bañ a am majorité majorité xam nañ ko de xam nañ nii gouvernement sama calcul ñooy am majorité mais majorité bu ngan na ngan bi ñoom moom la ñuy xeex te te xoolu day metti day saf de bataay bu saf sàpp la moo tax ma ne la sànq fi mu toll nii déglu rek ci la nit ñi de ci la nit ñi toll. déglu mooy comprendre quoi. ah. mu ne oustaz waxam ji doo ko mën a comprendre. ah pratiquement gars xam nañ ni ñu gouvernement bi mu ngi am maturité te demaguñ. déggoo leen bul sonn Assane. wala mu ngay Moodu Moodu yow yàgg ngaa suivre actualité Sénégal moom amee tey mës ngeen a gis pouvoir bu manque majorité assemblée nee ma bii la Assane li ma xam-xam la de. Macky Sall. man Sall amutoon maturité mu xoolal maturité de Moodu da ko lijjanti waat Moodu Moodu da ko lijjanti de sama mag sama eh, mag waxal mën na maa jur taam sax mag mais yaayam ak sama yaay ñoo bokk ñu koy wax Mbaye Ndiaye kooku lu mu bëggee woon ma ngi Saint-Louis di ma dégg déglu Misra ni mu bëggee ab Ablaye di kenn bëggee wu ko Ablaye Wade amul lu ma waxul ci politique réew mi lu ma xam ci sengoor moom la lu ma xam ci Mamadou Dia moom la amul lu ma daaw daawul nettali assemblée national ba jiboka ak Moustapha Niass di xeex nii la ma koy nettalee loolu bërki demoo ndialle yàggul moo la yoon ni Moodu loo gis ñu ne Assane dafa am yoon ñii nekk seen coalition jàppoo fas yéene bëgg majorité nañu seetaan rek. Mhm. législative yi bu dikkee ku liggéey fayeeku. ñi mhm. waaw ku liggéey fayeeku nag de. Ah, ñii fi ñu nekk ba fi may wax jow man mënuma laa lenn ci ci régime bi lu dul lu baax li may gis ñu koy doxale baax na mhm. xëy na problème bi moo di boo bëggee dégg-dégg xaalis moo amatul. xaalis am na. man gars yi ñamatuñ oh, ñam gi ñu ñàkk a ñam ba ko indi lépp oh, xola xaal bi circulé wul ne Modou nag Modou nag baam bi sax xam na ne robinet yi tëj na xam nga baam bi kenn gënu koo bëgg na mais Bambi li nga wax ni téere la ko bëgg Sonko mais ba ni robinet yi tëj na yëf ni mu war ni mu xoola asal yëf yi ni mu daan neex xoola xoola yëf yi actuellement ci cof lañu ne ñamaguñu ci cof mais xaas bi xaas bi xaas bi tasaaroo. tëjal tëjee tëj. ah loo bëgg rek ñu xam ne ci coof la ñu toll. mais gars yi ñamaguñ. loolu tax coow li bari. mais gars yi bu dëkk bi xaas bi génnul xaas bi lépp gars yi bloqué nañ. Oustaz li ma lay yokkal war a yokkal. may damay wax moo ngay dëggal te xam Moodu xam nañ dëgg la. <laughs> pour damay ñëw ci pur ku ne xam ne am na base am na mbooloo ma leen ni nuyu au passage di nuyu responsable moral Mouhamadou Moustapha certes ñoom dañoo mer mais jàpp naa ne bu ñu doon peese seen bopp dëgg te ànduñoo tey régime bi fi ne yaakaar naa ne waroon ngeen mën a demal seen bopp ndax xaalis baa nga fa mbooloo baa nga fa kon pourquoi ngeen di ànd ak ñoo xam ne sàmmuñ seen kàddu ngeen nañ sàmmante kàddu te ñu fa toog kenn ku ci nekk ca ñoom barki yonent bi la nga waxoon mun naa la koo génne sa kàddu bu ñu demee vaar doxalal Alaaji Modou est-ce que gis nga coalition yi opposant mën na am euh, majorité fële ci assemblée d'après bi nga gisee ñi nga xam ñoo ñu takku wallu ak nouvelle génération ñi feeñee fële. est que mën nañ am euh, ñi nga xam moo di majorité. waaw maa ngi nuyu Bambi Luz Clarita sànq ba tey affaire koy wër. taloo ko ni nga tàppee loxo bi ma doon fa dëgg la maa ko tànn li nga wax dëgg la. maa ngi wax macha allah rentrée des des bi ngay symboliser. Euh, Didi. Hmm. d' maak Baye Assane. Hmm. d' maak Souleymane Diaw. am naa jot mën naa werante dama koy wax rek mu leer. waaw gis nga gis nga oustaz. Baye Assane dafa ne Ablaye Wade ak Abdou Diouf dañu doon ànd di xeex di dugg digg xam nga moo nekkoon politique Sénégal dañuy bokk di lekk xaalis bi rek. Sénégal dañuy bokk di lekk xaalis bi rek. côté boo féetee maanaam est-ce que xam nga Didi parti au pouvoir yi fi nekkoon mhm. dañ doon fay opposant yi ku ci nekk nangami million par weer. pour lan. dinañ seddoo rek nañ lekk rek. li ma wax di may wax de Mamadou Ndoye bu AJPAD PADS. li ma xanaa wax. waaw ah, di gëstu rek. du ay waxam. dégg nga euh, euh, day perte damay bokkoon Benno Bokk Yaakaar bi ñu jotee ak Macky sàll moom moo génn mu ne Macky Sall da leen doon verser cinq millions par weer. gars yi dañuy seetlu gis nga gars xam nañu naa léegi nag Ablaye Wade ak kii Ablaye Wade maa moo nekk boo xam ne da ngeen ànd wala asim toog ni benn néeg man moom ak peut-être ñaari caméraman wala ñaari journaliste ñu toog di waxtaan mu mel nii benn sët bu benn maam di wax ay sëtam naan leen mbaa li ma wax baax na mbaa ni ma ko defee nii la président de la république modeste bi mu àndal maa ngi koy gën a ñaanal fan wu gudd ak wér mais moom ak Abdou Diouf maa ngi ñaanal aussi Abdou Diouf mosuñoo réeroo ci dara Abdoulaye bu demee ba poste yi rës Abdou dugal ko jox ko ñetti ministre ñun toog lekk-lekk ba doyal bu élection yi bu ñu seenee élection yi ñu génn taxaw mel ni kuy joorante ay xeer buñ kiiwaatee defaat nii buñ paree ko ne loolu du ànd nit ñi dañuy ànd pour intérêt général mooy intérêt buy jëmal réew mi kanam xam nga asal tax d'accord ma ak moom man du ma jël ànd Ousmane Sonko ak Abdourahmane Diouf ak bu Mimi Touré di ko rek ànd ñii ak ñii ak ñii baam bi dafa dafa siif sama lanci mooy turu coalition bi dañ ko war a njëkk a changé du sàmm sa kàddu ndax Bougane sàmmul kàddoom Pape Djibril sàmmul kàddoom keneen ak keneen sàmmul kàddoom waaw non waaw non non xam nga tey sàmm sa kàddu Ousmane Sonko kàddoom ñu ngi koy natt sàmm na ko sàmm ko mook Diomaye Faye bu ñu àggee 2029 ñuy laaj dinañ xool ba xam sàmm nañ seen kàddu wala sàmmuñu seen kàddu xam nga mooy wax bi waxoon naa ko fii damay répété wu juuf démb daa dend rek Abdou Mbow mi doon xorom. di ko sa te xorom bàyyi say jeex wala Abdou baax wala <laughs> euh, waa ji Diouf Assane Diouf moo yoratul xorom. Mm-hmm. xorom say jeex kon. waaw ndax li mu ko doon xoromee yépp mu ngi fi tegu taabal te démb ñoo toog ñoom ñaar. benn mm-hmm. man loolu mu nangu ko ci politique cest à diw defoon na ko taxul mu dagan man loolu du ko nangu ci politique man politique dama gëm ne ay conviction la ay gëm-gëm la bu nekkee da nga sóor ne yow ëllëg mun ngaa ànd ak ku nekk ci politique bu yëkkati benn cadre di ko teg ci kaw nit man loolu laa gëm Pape Djibril Fall nga xam ne ci critique yi mu doon def ci régime Macky Sall démb mook Abdou Mbow ñoo dend mm-hmm. Bougane Gueye Dany mm-hmm. bi nga xam ne moom barki barki démb bi muy dem di wuy gi dig moo ne juste su Macky Sall police su Macky Sall moom la tey Ousmane Sonko di utiliser. Mhm. démb mu toogoon ak Abdou Mbow. ban mhm. Macky Sall la ñuy wax. alhamdulilah xanaa bu Guinée. Ah, wala bu. Macky bu Guinée Côte d'Ivoire bokk. waaw bu Guinée wala Macky bu Macron. Mhm, Macky bu Guinée. non nañu wax ban Macky Sall lay wax. c'est vrai hein. politique xam nga sénégalais il faut gis nga politiciens yi tant que comprendre ñu sénégalais yi. wallaay azim du ñu am dara ci résultat xam nga oustaz mi ngi naan sénégalais yi xam man ku liggéey jëriñu sénégalais du ñu marchandise bu ñuy jënd mhm. dañu am suñu dignité am suñu kàddu gu ñuy préserver di xaar ñu jox ñu respect mhm. munoo ñëw di saaga ñii même pas juróom benn weer nga ànd ak ñoom dañu laaj duñ la jox man boog du ma la jox mhm. man il faut nga utiliser argument yu dëgër sama carte bi kenn moomu ko man maa ko moom man maa rang ñu defal ma ko dem mun nga di vote ji wutal ma bureau de vote bu jour ba jotee maay jël sama lépp dem taxaw rang vote kenn moomu ma dama da may wax lu ma mën a dégg Bougane Gueye Dany munoo ma ne Khalifa Sall traître la tey nga ànd ak moom di ma laaj vraiment xel da ko nanguwul bu nekkee bu nekkee am na ñoo xam ne sa xam nga na ñoo mën nañ lekk lépp bu nekkee yow sa xel nangu na ko lekkal amul mm. problème mais man sama xel nangu ko te damaa jàpp ne sénégalais yu bari ni man la ñu mel mm-hmm. coalition boobu sàmm sa kàddu nañ xool seen kàddu yi wax naa la ña nekk. Mm-hmm. ñëpp dañ doon clash. Mm-hmm. ay ña fa nekkante. Bougane Gueye Dany. Mm-hmm. onzième la sur la liste nationale c'est ce qu'il a xam élection député architecture bi ñu ko bindee. yéen ñëpp ngeen dem tafu ci national bi. <laughs> n'a pas de base. yow nga ñëw ci liste nationale bi yow ñi nga yor ci leader yëpp ñu taxaw ci national bi. on n'a man de Ousmane Sonko bi ñu defee yeewi askan bi d'accord de. dafa dem ci liste nationale bi ñu invalidé ko. waaye bi ñuy laaj mairie dafa dem ca Ziguinchor de. kii dem ci kii ku nekk dem te teewul ñoom ñi ci gañ yëpp moo ñëw campagne leen ñu gañ. maa la ko wax. cest à benn instant da natt sa bopp. Mhm. li mu wax ci pur d'accord na. Mhm. pur ñëpp xam nañ ne kil pleuve qu'il neige ils ont quatre députés. wallaay vraiment. qu'il pleuve qu'il neige ils ont mhm. loolu la leen yàlla dogal. te loolu la yàlla dogal ci ñoom. te jàpp naa ne bu ñu demoon seul ils peuvent avoir plus. mais ànd ak dañ leen di freiner. dañ leen di ñu defaree seen liste bi ñu ne. Barthélemy mooy jiite liste nationale bi ñu ànd jigéen ñu nekkuñ ci teg ñu ne Déthié Fall ñu ne ànd jigéen ñu ne euh, comment euh, ku ci teg Thierno Bokum ku ci teg jigéen andi waat kan Pape Diouri Fall après ku ci teg jigéen andi Bougane onzième position démb moom mu ne waa partenaire bi ñu gisee ne onzième position la nekk dem nañu réunir ne ko président pourquoi nga accepté lii nangama nangama nangam waaw parce que tànn tànn katu daal ay carax lay mujjee Bougane dafa daal mu mujj mu daal ci carax que tey ok déjà Yewwi Askan Wi ay non Yewwi Askan Wi ay couleur moo ko fa génne woon waaw seen couleur pa seen couleur mouvement yow Bougane Gueye Dany en tant leader de l'opposition comme ni koy prétendre Ousmane Sonko moo ko jaag wan yoon bi mu ngi topp di ko difa moom gat sa gat sa roqi mu roqi Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko musuñ ko investir onzième position sur une liste nationale na na réclamer bopp bi waaw mais bien sûr na réclamer bopp bi bopp bi mbooloom nattaguñ ko pour xam naka la toll. mais dafa am média boo xam ne mun na ko defal propagande. heure bu ko neexee taxaw wax. yaa ngi dégg lu ko taxee mun laaj mu laaj bopp bi. yaa ngi dégg baali ma leex dama même rek ma dem ci beneen coalition bi. Mhm. kon damaa jàpp ne. le le fait que ñu def ko onzième position choix am la du choix am. mënu koo contester ndax bu ko contester day génn te bu génnee fan lay taxaw te fu mu duggee dinañ ne kii munu ànd ak kenn fu mu dem génn fu mu def nangam ma nag onzième place nañu xaar ba xam liste nationale bi maam ba xam dëcc sax dina jàll balaa ñuy wax loolu yëpp tout est possible yàlla mooy mooy fal lu jàll dogo incha allah dina am beneen bi fi may daanalee mooy list Macky Sall li ñu wax njabootu lay Wade Macky Sall Abdou euh, Abdou Pape Diop Idrissa Seck ñoom ñoo ànd bon Amadou Ba génn na ndax Amadou Ba li tax mu génn mun naa ko comprendre ah mm-hmm. Ba mooy leader de l'opposition jamono bii nii Ah, APR la ko demee coalition benn Bokk Yaakaar la ko demee te coalition Benno Bokk Yaakaar à part benn parti APR bi Amadou Ba récupéré na leen muy AFP muy parti socialiste bi naan kon nañ jàpp ne mooy leader de l'opposition mm. nga dem ci coalition bi ñuy jël lu ni Dakar sept députés ñu ne Khalifa day jël quatre ñee jël deux yow nga jël benn mm. ñu ne ko yow noor bi li dalee Ndar jëm Fuuta maatam non ñun APR ñoo koy jël Amadou ko lu muy dese mu génn dem baleen tante chance malgré du am dara mm-hmm. parce que Amadou moom xam naa ne moom mooy mooy doon le grand perdant beneen bi yow waa PDS ak waa Macky Sall APR waaye ñooñu war nañoo toog c'est que fii daal politique daal <laughs> mun nga am mel nu ne et puis yow Sénégalais yi ngay wax nag yow nga ñëw taxaw Abdoulaye Wade sàcc la dafa sàcc ay tableau bi muy génn palais lu ne nga jiñ ko ko dafa am Assane loolu laa bëgg mu yox Assane mun nañ d'accord man ak ba mbaa bi mun nañ bañ a ci débat politique yow ci télévision nga nekk man a oustaz oustaz mën naa bokk pouvoir ma bokk opposition ñu ñëw plateau xeex ba ne ku nekk ñi ñi ngay reynde buñ génnee maay dugg jot oustaz oustaz yóbbaale ma wàcce ma mosuñu réeroo ci suuf plateau ku nekk ay ngay défendre mais dañ fay jiñante yu ñaaw dañ fay jiñante yu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw c'est-à-dire que yow c'est-à-dire que njabootu lay Wade Macky Sall li mu leen fi traqué ñun loolu fàttewuñu ko ñun loolu fàttewuñu ko maître Amadou Sall bii nii bi muy taxaw Matam naan Macky Sall bu na lekk Karim Wade bu dee dëmm na lekk Karim Wade ba Macky Sall bi mu doon wax <laughs> jël di ko utiliser man utilise ma beneen mot am na wax ko li ma gëm mooy tey jii bu fekkoon Diomaye gañewul réew mi Ousmane Sonko ñu nekk ci opposition man gëm naa ne du ànd ak waa APR ak ko mën a doon pour jël réew loolu gëwuma ko fi may daanalee nag mooy. moom fi ngay daanalee bi mooy ñetti waaw parce que maa mujjee fi may daanalee nag mooy sénégalais yi dofuñu ils sont très intelligents réew mi ñu ngi dem ci ay élections dinañ ci gën a ñëwaat ci yeneen plateau. d'accord gars yi composé nañu seeni coalition. toppandoo nañ ñoom Ousmane Sonko ci intercoalition Yewwi Wallu mais pour man intercoalition Yewwi Wallu boobu sax baaxul ma sama xaral laay wax ndax bu baaxoon dina am effet assemblée te amul effet assemblée ndax waa PDS ba ñu jëlee seen i 24 députés ba ñu demee assemblée dañoo ne suñu groupe la yore yor seen group teg ko ci digg kaw table yi di ko am njaay ak Macky di ko joxal Diop ñu leen di ger ñu def li Macky Sall bëgg. tey seen intercoalition par malheur bu ñu ba àgg tey ñu ne dañu am majorité ku nekk da ngay jëlaat say député taxaw dem xool nooy waxee ci nguur gi loolu ay moyens de pression rek lañ bëgg mais je pense que sénégalais yi mhm. xam nañu fi ñu jëm man de li ma comprendre mooy changement bii am ci diggante président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko du accident ñoom dañoo jàpp accident la du accident volonté populaire la c'est-à-dire que sénégalais ñoo ko bëgg maanaam nekkul ne dafay sës sa sufi amoon nañ choix pour ku leen neex xam nga ñoom dañu naan non bés bu gars yi doy nañ ci Macky Sall ñuy xool képp doole ñu ànd ak moom léegi nag confirmation bi élection législative bi ak koy nañ ci dem danañ ci dem mais buñ ci àggee sénégalais yi nañu xam ban yoon la ñu tracé dëkk bi te xam ne lii ñi ñu ñuy wax nii naan ñu ñii dañoo sàmmul seen kàddu defuñu dara xamuñ fu ñu jëm nangam yooyu yëpp ay waxi politicien la taxawul d'accord bu ñu demee ba ci kanam dinañ xam ne taxaw te xam ne réew mi instant bii nii ñu ngi koy teg ci fondement bu dëgër te bâtiment bu taxawee dana nekk bâtiment bu dëgër a dëgër dëgër loolu laa gëm voilà